الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي بقي ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo bind mboolem doomu aadama yi xamal leen naka la ñuy waxantee seen biir moom mi nga xam ne moo jàngal doomu aadama njàng ma mu jaarale ko ci am mbind ñu ngi seede ne kenn yowul ñu koy jaamu ku dul moom suñu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jàmbam tàmm ba mu taamu woon yónni ko ci ñun mu nekk koo xam ne mooy teete xeet bi ci ngërëmal yàlla gannaaw loolu gàllawaay mbokku jullit yi da ngeen ragalee seen borom na ngeen ko sant ci xéewal gu màgg gi mu ñu defal ci xéewal ga mooy lan suñu borom mu ne dëgg-dëgg yàlla baaxe ne jullit ñi bi mu yónnee ci ñoom yonent bu bokk ci ñoom mu leen di jàngal aayay borom bi di leen tàggat di leen sellal di leen xamal lan mooy ak xereñe muy xikma ak yoon bu jub donte ne ñu ngi nekkoon lu jiitu ci réer gu mag bokk loolu lu mu lay jàngal mooy amul benn façon doxalin ci kaw suuf lu dul ak réer nekk na ca ba mu def doxalin yañu royee ci sunu yonenti muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla sant ñu ñu daal di koy roy daal di koy topp mu ne nekk na ñeen leen ci yonenti yàlla bi royukaay bu rafet ñeen koo xam ne nii dafa yaakaar payug yàlla yaakaar payug allaxira tey sax di tudd boroomam lu bëree bëree bëri képp koo xam ne roy na yonenti boobu yàlla dana ko bëgg ci dana ko jubal képp ko woon gannaaw jubug yenente boobu yàlla dana ko bañ ci dana ko réeral loolu moo tax ba mbokk julit xam leen ne lii nga xam ne mooy xam-xam day lu yàlla subhanahu wa taala màggal la sunu borom yàlla kere bu muy yónni jibril alayhi salaam ci kaw suuf muy jokkale asamaan ak suuf di wàcce alquran ci kaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bam ñëwee commencé wul jàngal ko tawxid commencé wul jàngal ko julli wala koor waaye dafa commencé wax ko importance su xam-xam lu tax loolu mbokk julit ci xam-xam ngay xamee luy tawxid ci xam-xam ngay xamee luy julli ak koor bépp gëm bu àndul ak xam-xam réer la bépp julli bu àndul ak jàng cànk ca la ila axiri loolu tax ba jibril ñëwee la ko suñu borom sant mu jëkk ko wax suñu yeneen alayhi salaam mooy iqra mbokk kaddu gi jëkk a wàcc ci alquran waxuma aaya bi jëkk a wàcc dama ne kaddu gi jëkk a wàcc mooy jàngal iqra jàngal looloo tax jàng googu suñu yeneen ne farata la ci bépp góor ak bépp jigéen waaye booy jàng jàngal bismi rabbika allazi xalaq na nga jàng ci sa turu boroom ca mooy jàng xam ne yàlla mooy aji bind lépp yàllaay aji def lépp yàllaay aji xamle lépp yàlla moomu moo bindoon doomu aadama depuis mu nekk toq ma nuyu ci biiru yaayam sa borom yàlla boobu mooy ku teddiki moom moo xamal doomu aadama yi loo xam ne xamuñu ko woon loolu di teraanga bu yàgg lool boo xam ne suñu borom defaloon na ko sunu bàyyi ñun ñëpp muy aadama alayhi salaam keroog ba muy sant malaaka yi ñu sujuutal ko ma mbokk julit lan moo tax yàlla wax malaaka yi sujuutal leen aadama ndax dafa fekkoon aadama da leen a ëpp sabbal gu muy sabbal yàlla ndax da leen a ëppoon julli gum jullil yàlla wala koor gumu kooral yàlla laa wallahi mbokk julit kon lan moo tax malaaka yëpp sujuutal aadama mooy suñu borom yàlla daa xamal aadama lu malaaka yi xamul sant aadama mu jàngal leen ko loolu mooy kon daraja yi yàlla di yëkkati ay jaamam lenn la ca kaw la ca des yëkkatiwu leen ci jaamu yàlla gu bëri waaye dana leen yëkkatee ci xam-xam bu sell moo tax suñu borom ne danaa yëkkati ñi gëm yàlla ci yéen doon ay borom xam-xam ay daraja ca kaw ña ca des loolu di lu ñuy bàyyi xel bu baax ñi ngi nii nekk ci ubbi teg école parents d'élèves yépp seen xel yi mi ngi jaxasoo ay inscription ki fourniture waaye mbokk loolu lu ñuy sàkku ji ci loolu ñi ngi sàkku ji ci loolu la nga xam ne muy xam-xam mbokk xam-xam boobu ñuy sàkku ji xamal ne amul benn xam-xam bu ñuy sàkku muy jëriñ bu l'islam bañ donte ne xam-xam yi utal na ko ay priorité ak la ci war a topp waaye amul benn xam-xam bu l'islam bañ loolu moo tax ba wareef la ci ñun ñëpp muy maître ba nekk ca classe ba di jàngale professeur ba ne ci université ba ak yow parent d'élève papa wala yaay bi nekk ci kër gi ngeen xam ne yaru njaboot gi ñun ñëpp la war kon wareef la ci ñun ñu xool mu yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam num daan jàngale num daan éduqué ñu roy ci loolu insha allah da ngay gis ne daan doon ñu réussir su dee ne dañuy créer ay école normale dañuy former des professeurs xam leen ne prof formation bi gën a complet mooy sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen ci boobee gis nañu ne bakkoon na lum daan jiital ci am njàngaleem mooy di xamle lan mooy tawxid jàngale lan mooy nit ki jokkoo ak boroomam looloo tax ba màkk ba mu fa nekkee ñaar fukki at ak ñett yi ko yàlla yónni nga xam ne mooy risaale bi yépp fukki at yépp mi ngi ko degleel jàngale laa ilaha illa allah loolu it kon lu mu lay jàngal yow bàyyi yow yaay yow professeur moo di ne war nañu xale yi nekk suñu kanam ñu jëkk leen jàngal kan mooy seen boroom ñu xam yàlla yaakaar yàlla di sukkandikoo ci yàlla di dimbilikoo ci yàlla ci études yooyu nga xam ne dañ koy def te xam ne kenn du ci réussir lu dul ku neex yàlla kenn mënu caa xam dara lu dul yàlla xamal la malaaka yi waxoon nañ ko borom bi laa ilma lana illa ma allamtana yàlla mënuñoo xam lu dul la ñu xamal wéetal googu xale bi di wéetal yàlla yàlla màgg ci moom loolu mooy njàngale moo jëkk ba ëpp njëriñ boo xam ne dañ koy jagleel suñu njaboot wala ñu koy jagleel suñuy élèves yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu itte woona woon lool di yar la nga xamee ni nii moom mooy xale yi da ngay gis ne xale bi yar biñ koy yar ca kër ga la ca école ba la ca mbedd ma la kii di amur ibnu salama nee na man day toog naag yeneen bi alayhi salaam di lekk sama loxo ma nga jëm gauche ma nga jëm càmmoñ fu ma neex tibb bu doon te ne magi tey luñ koy wax tuuke waay yuuxu ko wala sax mën na am ñu daal di ko ci pes am pes loolee ngiree ñàkk a xam njàngaleem yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi sama benn mbokk ndaw mi ngi fii ci jàkka ji ñu bokk ak moom dëkk ca boori gam bi xam nañuy histoire bi may wax koo xamee ñi nii ci xale ay napp la ñu toog di lekk kenn ci doomu mag ji am comportement bu mu def ci ndab bi mu daal di koy pes daal di koy daggal aw saaga mag ji na ko waaye lii kenn du ko def xale ci boolu lekk mu ne ko ha yow fu may waxee xale yi rek nga dugg ci waaye da nga xam bàyyi mag ja mu dem ca tool ya mu fekk ko fa xeex ak moom barey ko mi ngi noonu loolee mbokk mi ngi amee fii kooku xamul luy njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye omar nee na ba sama loxo dee jaabante fu nekk yonent bi def na ma ay sama doom booy lekk da ngay wax bismillah ndax jàngal ngeen seen njaboot bi bu ñu lekk ñu wax bismillah booy lekk jëfandikoo sa ndeyjoor ca booy lekk nga fexe yem ci sa kanam nee na boobu xale bu ndaw la waaye lësoo boobu fàttewuma ko ba tey ma nekk màgget moom laay jëfandikoo ci ak lekk mbokk loolu ñu war ci bàyyi xel bu baax yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na heure bu daan jàngal ay xale daane fexe ba attirer seen attention ba nga xam ne ñu ngi koy déglu mu doog a wax ak ñoom waaye du leen woo rek jabatu jabatu jabatu jabatu ñu dem da ngay gis ci di Muaz ibnu Jabal nee na man day ànd naag yeneen ci bi alayhi salaam mu togg ma ci benn waruwaay ba mujj mu ne ma waaw Muaz ndax xam nga lan mooy àq bi yàlla am ci ay jaamam ma ne ko ah loolu day yàlla ko xam ak yeneen tam mu ne ma àq bi yàlla am ci ay jaamam mooy ñu jaamu ko bañ koo bokkaale ak dara ah ma ne loolu de xam naa ko kon tey ñu continuer dox mu mujj mu ne ma waaw Muaz ma ne ko naam mu ne ma ndax xam nga àq bi jaam yi am ci yàlla ndax xam nga àq bi jaam yi am ci yàlla ndax waa jàkk ji xam nañu àq bi jaam yi am ci yàlla mu ne ko ah loolu la yàlla gënal ci moo xam mu ne àq bi jaam yi am ci yàlla képp koo xam ne dee nga te musoo bokkaale ak sa borom dara soo demee am nga àq ci yàlla ne du la mbugal yal na yàlla wërsëgal ñu jaamu ko buñ ko bokkaale ak dara ay yéen bokk ci nit gis nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci am njàngaleem te pédagogie am mooy balaa wax dara day xemmem loo nit ñi pour ñu xam ko kii di abi bakrata nee na yonent bi toog nag ñun bi mujj mu ne waaw ndax du ngeen kaay ma wax leen bakkaar yi gën a màgg saxaaba yi xoolante da ko ah kay mi yàlla yónni mu ne leen bi gën a màgg ci bakkaar yi mooy bokkaale ak sa borom ñaareel ba mooy def lu ñaaw jëmene ko say wayjur waaye ñetteel ba mooy wax waxi fen ak seede ay fen wax fen ak seede fen di ko répété ba ñu ne waaye ak neexoon yonent bi alayhi salatu wasalaam noppi ay yéen mbokk ci nit bokk na yonent bi salallahu alayhi wa sallam heure bu daan jàngale day won ñi muy jàngal ne man kat dama leen a bëgg xale bi heure boo koy jàngal won ko ni ne man du lu ma lay forcé wala lu ma lay xiirtal bëgg la moo tax ma lay defal lii moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam ci muaz boobu ñu nekk li ba tey nee na bis yonent bi ñëw na jàpp sama mbagg ne ma ay muaz man day wax dëgg yàlla dama laa bëgg bul fàtte foo jullee ba pare nga ne yàlla yàlla nag ma dimbali ci ma lay sant yàlla nag ma dimbali ci ma lay fàttaliku yàlla nag ma dimbali ma lay jaamu jaamu gu sell jaamu gu sell mooy bu dëppoog sunna ci yàlla rek a tax ngal la waaye yéen waa jàkka jéppit man day bëgg naa leen na ngeen góorgóorlu bu leen fàttee gannaaw jullik ajjuma ji ba baa ngeen di dajeeg seen borom bu ngeen jullee ci seen ñaan ngeen boole ca ey yàlla yal nag ma dimbali ca ma lay sant yàlla yal nag ma dimbali ca ma lay fàttaliku yàlla yal nag ma dimbali ca ma lay jaamu jaamu gu sell ay yéen bokk jurit bokk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmaane bu mu daan won ca ndaw ña ak daan xool seen i bëgg-bëggi ndaw ak seen tolluwaay kii nga xam ne mooy Malik ibnu Huwayris nee na man day mas naa ànd ak samay moroom ñu ñëw ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ca Madina dafa jàng xam-xam bañ fa demee def fa ñaar fukki fan yonent bi xool ñu di waxtaan ak ñun ba yëg na ñun kat namm nañu suñu waa dëkk Malik mu ne yonent bi ku ñeewante woon ci ñun la ku amoon yërmaande ci ñun la mu ne xoolal léegi da ngeen di waat ngeen dellu seen dëkk fu leen waxtu julli dabe na ngeen julli li ngeen ma gis samay julle ca itamit kenn ci yéen na noddu bu ko defee ka gën a màgg ci yéen daal di leen di jiite ndax ñoom ñëpp ñoo tolloo woon ci xam-xam mbokk bokkoon na ci njàngalam yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daawoon gis nit def erreur rek mu ñëw dal ci kawam yuuxu ko bal yonent bi alayhi salaam da daan gaaral naka la daan def mooy heure boo xamee ni nii gis na ay nit def erreur da daan bàyyi ba xam ne ki def erreur bi mi ngi ci mbooloo mi mu ne waaw lan moo ñeel ay nit ba ñuy def nangam ak i nangam ak i nangam masalan am na benn bis mu taxaw ne lan moo ñeel ay nit ba bu ñuy julli ma gis leen ñuy téen jëm kaw asamaan xanaa xamuñu ne loolu duñ deñ di ko def baba yàlla di subhanahu wa taala di këf seen gis ya loolee kon mu lay wane ne kaka daan def ci mbooloo mi moom day daal di xam boppam mbokk yeneen ci boobu sallallahu alayhi wa sallam noonu la daan jàngalee jàngale boo xam ne léeg-léeg daawu ca boole wax ju bëri ay jëf la koy def taxaw na sahaaba yi toog mu ne nañ ma indil ndox ñu indil ko ndox mu commencé jàpp seen kanam jàpp seen kanam ba jàpp bi jeex mu ne képp koo xam ne ni day jàpp na jàpp bii nga xam ne moom laa jàppe gannaaw ba mu daal di jóg dem julli ñaari rakka yàlla baal ko mboole mi bakkaar yi mu jiitaloon noonu la ma sa taxawee julli ci kaw min baram ba jàkk jëpp di ko xool mu ne li tax ma julli ci kaw min bar bi bëgg ngeen xool naka laay jullee ngeen reye ko lii kon mbokk jullit muy woneen tamit ne war nañu xool njàngalam yeneen ci boobu sallallahu alayhi wa sallam mu jàngaloon sahabatul kiram ba ñoom ñëpp ñu mujj nekk ay maître yuy jàngale ñoom ñëpp ñu mujj doon ñu yàlla tagg ci xeet bi ne leen yéenay xeet bi gën ndax da ngeen di digle lu baax di tere lu bon képp ku gis sa morom ja xam ne da nga ko war a jàngal sa njabootal ak njabooti keneen mbokk dars yooyu leçon yooyu war na ci ñun professeurs yi ñun maîtres yi ñun parents d'élèves yi ñun ñëpp ñu fàttaliku waan njàngalam yeneen te boobu sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ay yéen ñi nga xam ne yéenay aji jàngalekat yi parents professeur na ngeen jiital yéene bu sell yéene ba mooy lan mooy kii may waxal mu jubal ko ci loo xam ne dana ko jëriñ ci addunaam jëriñ ko ci diineem yow mi nga jàngal élève bi nga jàngal ëllëg mu nekk médecin bépp malade bu mu faj xamal ne am nga ci tuyaaba ëllëg mu nekk mécanicien bépp oto bu mu réparé am nga ci tuyaaba lépp loo xam ne jàngal nga ko ci wàllu diine naka noonu rakka bu mu julli lépp lu mu jàngale am nga ca tuyaaba kon na ngeen yéene yéene bu sell ci teedi nit ñi ci lu leen di jëriñ àdduna ak alaxira loolu moo leen di jural ngeen am ca ngërëmal yàlla gannaaw ba yow parent bi yow professeur bi yow maître bi xamal ne xale bi li muy jàng sa jëf moo ëpp li muy jàng ci say wax na nga comporté woo ci kanamam comportement boo xamee ne nii xale bi dana ci mën a roy roy bu baax loo mën a wax ay say jëf moo gën a marquant ndax jëf yi lay gis su ko defee xamal ne lépp loo jàngale ci lu baax pay ga dana la fekk si ba ila yumi din ndax kooku kum ko jàngal kum ko jàngal waaye loo jàngale ci bonit noonu lay lu bon noonu lay demee looloo tax mbokk nañ ci góorgóorlu suñu kemtalay kattan sellal suñu yéene rafetal suñuy wax ci kanamu ñu ñuy jàngal rafetal suñuy jëf ci kanamu ñu ñuy jàngal ba duñ ci gis lenn loo xam ne day nekk ak juuyoo diggante la ñuy wax ak la nga xamee ni la ñuy jëf ñun ñépp ñu jëfandikoo waxi borom bi subhanahu wa taala te mooy fexe leen tegal seen bopp ak seen njaboot la nga xam ne mooy sawara boo xam ne la koy taal mooy ñi tegi xeer ay malaaka ña nga fa duñu mooy yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla tënk ñu ci njàngalem yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla def ñi royukaay yu baax yuy teeti nit ñi ci njubu adduna ak njubuk alaxira yal na yàlla subhanahu wa taala rafetal suñu mucc yal na yàlla baal ñu suñu bakkaar te jéggal ñu suñu mboole mi rëcc rëcc yal na yàlla wàcce jàmm ak aafiya suñu réew yal na yàlla fay guerre ya nga xam ne moo am ca Syrie moo am ca Irak ak Libye ak Afghanistan fu mu mën a doon ci kaw suuf yal na yàlla wëlbati coono yi julli ji defal leen ko aafiya wëlbati aafiya yéefar yi defal leen ko coono bu yem ca ñoom képp yal na yàlla rafetal suñu mucc te defal ñu àjjana mi suñu wàccuwaay yi année scolaire bu bees bi yal na ko yàlla def yiw ñeen mboole mi ndaw yi julit ñëpp yàlla nañ jàng ca daara yi lu leen jëriñ ñi adduna jëriñ leen alaxira lépp lu nekk ca njàng ma lu leen di lor ci adduna ak alaxira yàlla yàlla fegal leen ko allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar ñi ngi fàttali it ne takkusaan bi ñi ngi koy julli cinq heures mooy quart اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين